wa iya, iya, ministre kan ya nga jeex yeex ñàkka la yeex ñàkka la aywa ministre ya nga jeex wër 1 million la koku maître da nga bëgg liggéey xam nga sonko xam nga no xam nga jomay jomay mo sonko rek jomay fu nekké sonko laj ko sa bay makki muso lubal musul am muso randal musul am muso jël lo momul musul am kon jox nañ maître ministre bi jëm ci walum comédie soxlawuma ko ya xam sa nga nom bop baal la <laughs> waa Sonko affaire moom ba tey. ba léegi dara. per père gorgol. Hmm? ndafa. naam. naka chômage bi. chômage bi metti na. mais ba nga liggéey. ñoo ah. ñool jël la. non non non. ñi ñëpp soxlawuñu leen. ci yàlla. nguur gu wax ni ñëpp si ragal liggéey. yi dañoo ragal lool. léegi ko façon ministre yi bëgg fu mu koy jëlee. moo ma jaaxal nag. dana ma jaaxal lool. ñu fal la ngay ngóoru. du fi amee. ñu fal la ngay tappale. du fi amee. ñu fal la ngay jaay doole. du fi amee. pour affaire maa po Mansour Faye. boo ko waxatee ma porté plainte. fenkat nga. <laughs> waaw mais tax bëggoo jël poste. am ragal suma bàmmeel. lu tax ma yoon Sonko jub jubal. yàlla yemalewul ñëpp. lu si problème bi mënoo ko. damaa ñàkk fay de. Père Malick kaa jël ministre sport. <laughs> waaw jégal ma rek seeti keneen. <laughs> Farogum dégg naa du seen pare na. gis nga loolu yëpp yëg nañ ko nun de yëg nañ ko de. dégg nga ko Sonko wax. lan la wax. non ma la ko wax. ma. la. bàyyi lekk riba. ku ma ko jox damay lekk. munoo bàyyi jaay suuf. ñëpp xam na ne Farba Ngom day jaay suuf. Ah, waaye lu ma ko war a wax. ñu koy saaga rek. ñeme ko saaga yow. ñeme naa saaga ndeyam saaga baayam. saagal ma ko. sa ndey sa ndey sa <laughs> euh, dafa am comme Macky dafa gëm buxaaba bëgg ko gëm sëriñ la dañ ko wax ne ko. mais ki la war a wuutu ku xees la ku gàtt. la vérité mane mane mane ne ma